salaamaaleykum euh, chers internautes amis fidèles de web info ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a tàmm di seetaan suñu site internet bii di web info dal see leen ak jàmm yéen ñi nga xam ne tey nekk au niveau national comme au niveau international ñu ngi leen di bégwaat bu baax a baax ñi nekk si hôpital yi yal na yàlla fëgg seen bopp ñi nga xam ne tamit danoo nekk si prison yal na yàlla jënd seen dossier ban dem fekk ci seen ay njaboot te nag euh, si sama émission bi ma dalal ko koo xam ne nii tey maanaam yaay Fall yaay fal boo xam ne nii tey moo bokk na si ñuy jiital euh, daara DMD muy daayira Maam Jaara Touba de Grand Dakar donc mu doon koo xam ne nii tey euh, ñu ngi ko tuddee kii di Mboro Dieng Mboro Dieng maa ngi kontaane si recevoir la si sama plateau ñu bàyyi la nga ñëw mbokk internet yi. bisimilah rahmaani rahim jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba jaaraama Sidi Ibrahima Fall. di ñaan suñu xalifatul am Cheikh Mountakha suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg mm-hmm. ko ñaanal sañ am di Modou Mbène Fall xalif général des Baye Fall suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te wér mm-hmm. di ko ñaanal suñu kilifa daayira soxna maam Faati Mbàkke ñu koy ñaanal gudd fan ak wér giram ba naal yi mu naalal maaw mu ànd ko DMD ba ñu liggéeyal ko ko ci kanamu sëñ bi mm-hmm. di ziar mbokk taalibe yëpp leen wax man la soxna Mbore ñu may woowee bàjjen Mbore dëkk Grand Dakar bokk si ñi nga xam ne ñoo nank ci daayira DMD di hmm. daayira maam jaara Touba Grand Dakar. Hmm. ñu ngi lay ñu ngi ziar tamit waa site bi yëpp waa web info hmm. di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal mu dem ba ci kanam ba am ay télé yëpp ñu ngi leen koy ñaanal di la di la nuyu bu baax su sëñ Souleymane ñu ngi lay ziar bu baax a baax waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax comme li may wax rek euh, kontaan naa di dalal si suñu local yi di web info xam naa ne balaa ngaa dem di nga bàyyi ay ay ay ñaan donc euh, defe naa ne rek euh, mën naa ñëw si takki nelaw tuuti la moo waral bàjjan bore bi bàjjan bore <laughs> ah lu ko waral dañoo mhm. nekk Grand Dakar plus particulièrement ay tout tànk mhm. la yor mhm. te xale boo ko yoree rek war nga ko jàngal langage te yoonu mur dañu am ñu suñu langage bàjjan soxna si yaay boy parce que yenn langage la ñuy bañ ba familiar yi ko moo tax ñu man sama waajur sax daf may woowee bàjjan ndax njaboot gi ngay uuf daanaka ku nekk ngay gis yëpp nag da nga leen yaayoo hmm. bàjjanoo leen yow yaay xool li ñuy manqué ak li ñuy def yëpp da ngay dem ba dugg seen fii dañuy dem ba mel ni yow say doom lañ maanaam ndey ji seex na waaw hmm. waaw mën nañ ko tudde noonu waaw mën ko tudde waaw donc euh, defe naan tamit euh, euh, gis nañ aussi li nga xam ne tey mooy daara DMD bi ngeen lool lool li nga xam ne mooy wàllum social mais avant ñu ñëw si wàllum social bi maanaam waay daara bi naka la demee suwaay daara bi ci ndigalu soxna maam Faati Mbàkke hmm. dañu àndaloom hmm. mu dem ci sëñ Saalim ñuy ñaan suñu borom yokk ay leeram taas hmm. suñu barkeelam ndax sëñ Saalim moom jox turu daayira maam jaara boobu en 2005 2006. si la daara ju juddoo ñu nekk Grand Dakar boobu ba léegi nag ñu ngi koy doxal ànd tamit suñu kilifa bi soxna maam Faati ànd tamit suñu yaay ji nga xam ne moo jox këram soxna jàbbagay moom moo jox këram foofu lañ def siège daara ji depuis 2005 ba léegi amuñu fa benn njàqare amuñu fa lenn Hmm. daanaka kër gi daar kër sëñ Tuubaa ñu koy ñaanal de passage moom hmm. suñu borom bàyyi ko fi mu loolu tamit tamit. Hmm. donc defe naa ne aussi euh, su ma ñëwee si li nga xam ne tey mooy wàllum daara te bu wax daara tamit comme li nga wax rek euh, tout le temps euh, day am ay ay ndaw yoo xam ne ni tey maanaam dañ leen teg si yoonu ihdina siraatal mustaqiim mu doon loo xam ne ni tey sasuwaay la sasuwaay boo xam ne ni tey c'est pas du tout facile maanaam nan ngay mën a nga xam ne tey mooy xale yi nga xam ne ni tey amaana. juróo leen mais ñu boole leen ci benn kuréel goo xam ne ni tey maanaam mën naa wax ne mooy daara euh, maam Diarra naka la demee loolu c'est facile ou est-ce que doon na yombu yomb. moom li ci jëm rek mooy ndimbalu sëñ bi ngay am. su hmm. du sa ngóora jàmbaar da ngay xam ne lii par exemple ay don sëñ moo la dimbali pour nga def hmm. jàng nañu ba am suñuy diplôme mais lii lañu yàlla xiir. Hmm. ndax xale bu nekk dina indi jukkoom. te xale bu nekk war nga def lavage de cerveau ci moom ba nga xam ne hmm. tey ji mu doog a xam mu xam fan la juddoo mu xam fier d'être lu si ay parents surtout nga doom fier d'être africain nga xam ne hmm. yow nit ku ñuul nga hmm. waroo jël ay coutume kenn di ko yor parce que ñun dañoo bàyyi suñuy coutume ak ñu am suñuy suñuy idéologie yépp dañ ko war a dox nga xam ne xale bi tey jii di nga ko jàngal ci diine li njëkk ci mom la mooy da nga koy ijil soo ko jàngalee mu ijil ba pare nga jàngal ko alxuraan su mu nee alxuraan nga jàngal ko xasida hmm. noonu la ñuy def parcours bi jàngal ko xam-xam hmm. léegi nag xale bi xale bi nag lu ci ëpp solo mooy hmm. xale bi nga xam ne dafay jàng téere xam ndax bu xamee la day yaru ku xamul rek mooy yaru te loolu nag ci ndimbalu sëñ bi la gaa naan ku xamul xamul xamul waaw bari yenn saa yi nit bonul daa ñàkk xam ñàkk xam bi nag mooy ñun dañoo baaxoo du bëri nit bu bonale ñun dafa bon mais xoolal lan moo tax mu bon dafa xamul kenn bonul ku sañoom da ngay bokk si ñu baax te kañoom da ngay bokk si ñuy séddale koo yërlu tey fëgg ko hmm. da daal si ñuy séddale ak ñuy joxe laa bëgg a bokk mais parents yi manque de communication ak suñu doom yi ak waxtaan ak ñoom moom hmm. parce que li ci ëpp rek gëdd la ak saaga te hmm. loolu fajul dara nga xale da nga koy déglu waxtaan ak moom fekk si ko si lu mu bëgg ba doog ko wan lan la wan ko yoon bu jub yoon bu baax te xale yépp nag bëgg nañoo baax waaw ndax man ñu ma ci abordé bëri na année yu bëri na mais kuñ na kii dafa dëgër boobu ba la ko man Fane Sall koñ bi mu day dajaloo indi ma benn xale ni ma kii dafa terrible wax ma ci ay moom ma mm. bàyyi ko du ma ko dóor du ma ko damay waxtaan ak moom mm. deux mois trois mois koñ mi ñoo ñëw ni la kii loo ko def mm. te lépp waxtaan ak moom la waaw jaarale ko suñu borom tamit dimbali la ci borom defe naa ni xam naa ne dinaa indi sama jarbaat bi ku terrible la koo xam ne ni tey <laughs> boobu bi wow na wow koo xam ne faaw faaw faaw mu indil la ko mboree donc def naa ne aussi daara bi nga xam ne moom ngeen yor da ngeen di œuvre si li nga xam ne tey social mm. te ku wax social aussi euh, euh, léeg aussi euh, dafay laaj ndimbal boo xam ne nii tey maanaam da ngeen koy jokkalante déjà social bi nan lay demee mbir yi koppar si yéen lay jugee wala am ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne te dañuy jàpp si mbir yi. waaw mbirum social bi nag ndimbal boo gis da ciy fekk loxo borom. Mm-hmm. comme ay xale lañu te da ngay dem ci benn daara ñu la dafa war a inscrit dafa war a fay par amul foofu. kenn fayul dara. kenn hmm. jëndul benn téere ndax ci site laay waxe hmm. kenn fayu fa dara ku ñëw indi sa doom dañu la nangam ak nangam la ñuy lii ak lii mooy règlement bi hmm. xale buy ñëw règle ko dafa war a correct dafa war a def nii parce que xale bi tey warut a ñëw am yenn comportement yi ci biir daara ñu commencé ko jàng da ngay dem ba xale bi famille mooy daara ci léegi social bi ñuy def si ñun ñi nga xam ne ñenn ñu féete mag ñoom ñoo koy def Mm-hmm. ñoom ñooy génnee ñu xool ni tey jii am nañu benn ordonnance wala am na benn cas xale boo xam ne opération daf ci war a am. ñu ne ñun quatre cent mille la ñu dugal ko ci biir groupe daara mm-hmm. kenn ñëw ni man mën naa ci cent mille kii ni mën naa ci fukki dërëm kii ni mun naa ci juróom ñu dajale ko. Mm-hmm. dem yóbbu hôpital. d'ailleurs tamit am nañu tamit suñu mbokk taal bi yoo xam ne ñooy ànd doom jàngandoo ñoom ku ci mel ne Numbe Saliou Diop maam Diarra Fall ñooñu tamit dañuy jàpp ci daara ji. samay frère tamit ñi ngi fi ñoo xam ne maa ñoom ñoo bokk da ak baay dañ hmm. du ñu déggee dara am na ci daara ji dañuy def seen li ñu mën ak lu ñu mënul de passage su ma tuddee kenn rek doy na ci famille bi muy Mayoro Dieng ak Fatou Dieng hmm. tamit dañ ciy jàpp te mbooloo mooy doole hmm. fukki dërëm ak juróom boo ko rek xeeb lu bëri loolu nag la ñuy dajale ci dimbalante suñu biir di ci ëpp suñu daara moom mooy social social bi nag yëpp ci xale yi la jëm parce que xale yi dañoo warloog ñoom dañ leen di habillé dañ leen di nourrir mais amuñu foo xam ne financement dafay yéen hmm. amuñu ko ay bonne volonté ñii ñu ci bëri ci mbàmbur daara ji la wala nga am parent boo xam ne xam nga ko nga ne ko lii la daara ji soxla mu def ci li mu mën ah li si ëpp si si si si mën naa wax ne ñi ngànk daara ñi ñoo koy génne ñoom ñoo koy génne ku ci hmm. mel ne Bintu Kali Kulibali hmm. démb rek cours du soir xale yi rek fay nañu cinquante mille ci daara ji la génn parce que ñun benn xale bu réussir jaral nañ ñu dépense lu Hmm. parce que réussite am mooy réussite Grand Dakar mooy suñu réussite am. Hmm. parce que benn jigéen bu baax société bu baax la. dëgg loolu nag dañ ci efforcé wu chaque jour nag. Hmm. jëfee ñun xale bu baax jaral nañu lu mën na ci jël sax suñu portable joxe ko. jox ñu ko ñu dimbali ko. waaw ah, daf ñu koy jaral te buñ koy def ci xol lañ koy def xol bu laab lañ koy defee. waaw ah, donc di leen fàttali rek ñu ngi dalal suñu plateau kii di Badiane Mbore. ñu gën ko xam si Mboro Dieng donc mu jiite maanaam bokk si membre yi nga xam ne tey ñoo sos li nga xam ne mooy daara Euh, Maam Jaara Touba fi nga mi ngi nekke fii nga xam ni tey mooy si Grand Dakar donc jot ngeen gis yi nga xam ni mi ngi koy jot a développé def naa ne aussi euh, ñi nga xam ni tey mooy les bonnes volontés ñi ngi seetaan émission bi xam naa euh, du ñàkk ni dina am ñaar ba ñett yoo xam ni tey dinañ ñëw ku mën a ñëw rek ñëwal mais nag Mbore gis naa ne aussi daara ji dafa am ay activité far yoo xam ne ni tey maanaam da ngeen si dugg muy lu ci mel ni màggal Touba ziara dundal weeru koor poroxaan beeg yooyu Euh, actuellement nii si la ngeen ne wàccaayu poroxaan bi lañ nekk. wàccaayu poroxaan bi waaw. Mhm. Mhm. ndax poroxaan daayira maam jaara lañ tudd. Mhm. di suñu màggal. tey ñun jàpp nañ képp ku dugg poroxaan ñu ñoo la war a berndeel ñu ñoo la war a nala. ñun philosophie boobu la ñuy ndax dañuy gaare ay bus camion yu yóbbu bagage lépp parce que daara ji bëri na ay section de à partir de cinq ans am na section yoo xam ne xale lañu ñoo xam ne ñii ñooy euh, ñii ñoo xam ne jëm nañ mag ñii ay maire lañ. ndax mi suñu yaay itam dañuy dem poroxaan hmm. mais suñu yaay duñ demee poroxaan ñoom dañ leen fay defal comme buur lañu parce que nit ku nekk sa waajur boo ko yóbboo fenn war nga ko mën a tàttagal sargal ko hmm. ndax bàyyi nañu lu bëri ndax soxna Jaara soo xoolee ci ay atam 33 ans la hmm. mu mu wax 33 ans mokkal na ci alxuraan jëf ci jëf ju rëy ji ndax foo xoolee ci monde bi yëpp mel ni jigéen moo am magal mi soxna Jaara kon kooku dañ ko war a sargal chaque fois te ñun suñu amee référence wala ñuy xool ci kenn rek soxna Jaara la ñu moo tax képp kuy dem poroxaan ne damaa bëgg a dem poroxaan dama naan la kaañ dem ndax galamu dama ne ko suñu doxee dinga nga am problème parce que fu nit ñi heure bii dañuy def ni man man sax maay màggal la ñuy def ni te loolu yëpp dimbalu suñu borom na ndax màggal bi ku fa ñëw xañ na lañ leen wan ay image yoo xam ne di nga xam ne ñii li ñuy liggéey dañ la koy wan ndax lu ci mel ni dañuy yóbbu lu ma 33 ay boolu yoo xam dañ koy yóbbu jébal ko soxna xalif général di mu muy soxna baale ndax sëñ moom lañu ñu boole mhm. ci xéewal yooyu lay jël tasaat ko ci biir mhm. muy fureeg lépp loo xalaat rek dañ koy yóbbu ñun mhm. siddeem sax dañ koy berne laa gerte jàpp dañ koy yóbbu ndax màggal googu mooy suñu màggal maanaam lépp ngeen di yóbbu lépp waa ñun fu mu toll nii bu ñu gisoon sax mën na yóbbu sit bi dañ koy yóbbu teg ko fa déet waay <laughs> defe sit bi kay fu mu nekk nii jox naa la ko addi <laughs> fu mu nekk nii kay booy dem mun nga ko yóbbaale fépp foo mën dina parce que li ngay wax nii euh, dafa dafa doon loo xam ne nii tey du Sénégal yëpp bàyyi xel na parce que tamit a jiite ay ndaw wala ab kuréel goo xam ne tey def na ñetti nit sax nga leen di dundal di leen di leen jox li nga xam ne tey mooy éducation di leen di tatagal euh, bu gàmm amee ngeen yóbbu leen ak leneen ak leneen du si mel ni li nga xam ne tey mooy màggal Tuubaa beeg dundal weeru koor gi def naa ne aussi euh, don na ñoo xam ne tey dañ leen war a bàyyi xel bu baax a baax a baax. li ci ëpp sax màggal Tuubaa. Mhm. ndax sëñ bi dafa ne kaay leen sant le ma yàlla. Mhm. te kuy sant yàlla day fekk nga tal yàlla. ndax ñun bu ñuy dem màggal Touba dañuy dem ñun ñu ngi dal sàmm. Hmm. mais bu ñu demee fi ñuy dal environnement boobu li fa nekk yëpp ñoo leen di bernde. Hmm. ndax ñun bu ñu xëyee dañ leen di jox ndékki. dëgg añ reer ba pare dañuy jël ay gàtt lewetal ko distribuer viande bi autoglace dañ ko fay teg leen jox. Hmm. parce que dañoo bëgg dëkk bi yëpp nekk ci sant la yàlla boobu. kenn bëgguñu mu manqué muy fruit loo xalaat dañ koy defal ci dëkk bi. te daayira boobu daayira bi nekk daayira tu Jaara Touba Granada mooy supporter loolu mhm. ndax bu ñuy dem da ngay def ba da dem ba ci àgg nga ne ñii ay nax ay milliardaire moo leen jox wala déet mhm. wante mbirum sëñ Touba moo demee noonu ndax mangoo mhm. la muy saf ko ko macc ko xam ndax sëñ bi boo ko cofee mu jox loolu tam boo ci duggee mu jox la lépp loo nga mën ak li nga mën parce que ñu dañuy toog pareen saa yi ñun bëri nañu ay jour du ñu nelaw mais du suñu sëñ bee ñu dimbalee loolu fu mu toll bu jugee fii dañuy dem liggéey ji xool lu ñuy def poroxaan bi jaral na ñuy réunion ba feneen pour réussite boobu am hmm. léegi nag euh, gàmm gi fii lañ koy defee Grand Dakar hmm. ndax nit nekk fi nga dëkk foofu nga a tiitaru ah. tey gàmm gi li ko indi biir Grand Dakar ñu koy def parce que xale yi seen parents yaa fi ñu mën a xool ni tey jii xale bi jàng na lii war na mën a ñëw am résultat hmm. mu toog solu jàng kuréel jàng ba fajar ñaan suñu borom dëkk bi am jàmm ñi feebar ci hôpitaux yu jóg ñi caabi féete ginnaaw suñu borom génn leen ndax du bon moo leen fay du ñàkk fula moo leen fa yóbbu nattu mm-hmm. àdduna moo leen mm-hmm. parce que nul est parfait suñu borom kese moo jam mm-hmm. kon nag ñooñ tamit chaque fois dañ leen war a di fàttaliku ñi nga xam ne tey gisuñu tamit ñi leen di fàttaliku ñi nga xam ne mënuñoo dox tamit ñi leen di fàttaliku ndax ku ci nekk la am ga partie de di ci dëkk bii ñu dëkk muy Sénégal te ñun amuñu kenn ko dul Sénégal ndax Sénégal suñu titre rek dafa doy sëñ tubaa fii la baax baay ko titre boobu doy na titre boobu tax na tey ji ñu duñ bugg rus nañoo def lu bëree bëri comme gis ngeen da xew ci dëkk bi màngaan yi ñuy def hmm. ku ci nekk yaa ngi bëgg a génn dem wuti ci hmm. bu ñu doyloo suñu borom suñu borom fekk suñu waaw maa ngi lancé hmm. nga xam ne yàlla suñu borom gëmul nelawul te yàlla ku lépp lu war suñu dina ko def te moo ñu gën a xam suñu bopp waaw ñu ñaan ñëpp la képp ku am mbébét ak li nga bëgg suñu borom defal na ko te nga tal def naa ne aussi euh, li nga xam ni tey mooy daara ji euh, mën naa wax ni euh, ndimbal la goo xam ni tamit ñu ñëpp dañ ci war a dugal si suñu loxo def naa ne aussi daara ji am na benn numéro boo xam ne ni tey képp ko war a barkeelu mun na dugal foofu li nga xam ne tey mooy kopparam bu dee am nga ko rek ñu jàllale ko. waaw daara ji am na ko ndax lu mel ni proxaan bi rek tàndarma yi ñuy dajale am na benn logo bu ñu def def ci sama numéro. numéro euh, baamtul numéro bi. numéro bi 77 la. 77. 546. 546 waaw. 02. 02. 84. bamtuwaat ko. 77. 546. 546. 02. 02. 84 Wave la Orange Money la. Wave Orange Money la. waaw numéro boobu. Ah, defe naa ne aussi euh, si loolu laay jaaree rek daal di woo ki nga xam ne tey mooy sama sama sama sama nijaay Serigne Fallou Saer moom day dox bu baax a baax a baax si la wàllum social ma ma ma daal di lay tàllal loxo rek nijaay nga daal di ñëw <laughs> daal di daal di daal di daal di may ñëwal fi nga xam ne tey mooy daayira maam jaar bi nga xam ne tey moo nekk fii si Grand Dakar donc doon ay ñoo xam ne nii tey mën naa wax ni. après liñ fi jot a jukki si wàllum kàddu gu rafet ak si wàllum éducation ak sociale bi doon na ñoo xam ne tey ñun war a mën dimbali la donc euh, maam jaara mun naa wax ni man déggal ma naan maam jaara soxna Mbore euh, instant bi ni euh, programme bi jub si na te ku wax programme wax soxna maam jaara Bousso mm-hmm. soxna maam jaara Bousso doon dox si li nga xam ne tey mooy ndigal mm-hmm. ndigal loolu noonu noonu tey mun naa wax ni si xale jigéen ñi ndigal loolu xaw na nax saaye si lu bëri waral divorce yeeg waral leneen ak leneen benn benn benn brèche la rek bu ma bëgg dugg ak yow te jigéen naka la war a ci wàllum ndigal boo xam ne tey borom këram dëkk koy jox. jigéen dafa war soxna dafa war a wéyee ndigal di bàyyi tere ndax ndigal caabi la su ëppee. Hmm. du tijji bu yeesee du tijji. dëgg te nit boo koy bëgg bëgg ko te yàlla tax. bu dee pajaas nga fa fekk nga tëdd ci pajaas te pajaas amatul. Hmm. bu dee éponge nga fekk mais bëgg-bëgg àdduna bi moo bëri. ndax tey jii soxna yi di ci ëpp. chaque semaine bëgg nañ dem si xew. bëgg mm. sa borom kër jox la ko. Mm. la vie n'est pas facile. la vie est seer na. léegi yow moom mu war laa dimbali war a dimbali sa waajur war a dimbali sa papa war a mm. dimbali moom ay waajuram. léegi yow mi soxna tey jii yaa war a takk sa ndig moom bu wuti jee sax soo mënu jul wuti ji nga indi sa kanam gu lewet su ñëwee nga reetaan soo amee loo mànge sax nga reetaan parce que am na loo xam ne boo ko indee sa borom kër. may ko jàmm may ko ndox mu ñëw nga may ko ndox léegi loolu amatul. Hmm. da ngay toog ni jànq bi eh ko ndox wàcc na loolu du sëy. Hmm. dañ nit ñoo war a xoolaat suñu bopp ñu tarbiyu bi war tarbiyu bi war wax ni borom kër bu la joxee li nga xam ne tey caabi ji nga xam ne tey mooy ngërëm. ngërëm euh, dem nga àjjana kenn du la la borom kër boo am ngërëmal suñu borom. Hmm. parce que tey jii tamit wax jooju tamit dafa complexe. parce que tey mën nga am borom kër boo xam ne jubluwu a ci lu baax. dëgg la soo ngërëmal kan ngay laax ngërëmal iblis. ndeysaan wante borom kër gu suñu borom tere hmm. muy wéy ndigalu suñu borom di ko bàyyi ay tere ko bu la gërëmee dangay ngay dem directement àjjana te euh, te àjjana soxna mi ngi nekk su tànk borom hmm. kon nag soxna yi ci du ci baamtu waatal loolu <laughs> àjjana borom euh, hmm. soxna mi ngi nekk ci tànk borom kër ndax lañ bàyyi lu bëri di jëfe ndigal di bàyyi tere ndax soxna soxna lañ nga mën a nekk ndax góor soxla góor yàlla moo lay jiite nga topp ci ginnaaw ndax góor yàlla borom sa borom kër mun am baat ci kër gi nga am kër benn baat ki sa mooy ji hmm. sa baat nag nu suufee nga xam ne yaa war a àndoo soxna jaara li mu am hmm. mayuñu ko ko da koo jënd hmm. moo tax mu am ko ndax tey ji suñu waxoon suñu soxna si toog nii biir plateau teel a sàkkat sa borom kër ba taw bi sëwet ah ni kii daf maa yàq waaye kii lu tax mu may def loolu du la jëlloo exemple <laughs> ah. exemple boobu exemple bu mat exemple nga jël foofu soxna bari dama jural ndax man ndeysaan ndax nit a ko jur nit a ma jur dëgg tant que yaa ngi koy wax la doo hmm. parce que tey jii suñu borom kër yi dinañ la teg dara tarbiyo woo ka war ko na parce que demoo daara hmm, hmm. li métti ci kër gi yaa ko war a pour nga am nga reetaan ëllëg ndeysaan tey jii boo juree say doom ñu ni la sa yaay dafa sonnam ci kër gi moo tax nga am lii ndeysaan d'ailleurs rek am na kenn ku takk soxna fan yi rek dañuy yaay kooku dafa doon sëy sëykat la woon moo tax mu am pourtant soxna si mag deful ene time ak yooyu yëpp. dëgg la pourtant ñu bëri ñee nañ ko. Mhm. suñu ñoom ñooy nekk place am. Mhm. te soxnaam si jàng na alxuraan. dëgg la fii milliardaires yu bëri jànguñu français. Mhm. dañoo jàng alxuraan. yàlla lu mu la war a may dina la ko may. mais tey jii munoo jël loo xam ne da nga koy teg sa borom ay nattu. bëgg say doom réussir mu tane. benn nga ciy bàyyi da ngay ñam kaani gi bàyyi ñoom ñi si. loolu doo nga fi ne. ndeysaan bu baax na. soxna Mbore billahi wallahi bugguma sax li nga xam ne tey mooy émission bi jeex parce que tamit gis naa xam-xam gi nga xam ne tey yaa ko doon jukkil mbokk internet di defe naa ne aussi mun ngeen interagir ak ñun à chaque fois rek di joxe seen ay suggestion di di di di di di di di waxtaan ak ñun parce que tamit bu ñu dalalee jëmm yi ni mel dafay baax bu baax a baax a baax ñu ñu ñu daal di leen bàyyi xel bu baax a baax. Euh, mais tamit balaa balaa balaa ñuy tëj rek euh, ñu daal di insisté si li nga xam ne mooy wàllum ziyaara gi ziyaara gi naka lay demee. waaw ziyaar bi daan xalif général des mourides la ñuy ziyaar muy sëñ Muntaxa. ndax ñun moom la xam. Hmm. laata muy doon xalifa baayam lañ ko commencé ziyaar jaar yi. Hmm. ci ànd nag suñu kilifa soxna maam Faati. dëgg la xam ne c'est une battante. boo hmm. xam ne ñun ci yoon bu baax lañu jubale. ndax bu ñu fekkoon ñun ñi mu jubale ñu si leneen. xëy na du ñu ànd ak mais bu dee àdduna moom jël na àdduna teg fële dën ma liggéeyu maamam ki képp muy liggéeyu sëñ Tuubaa yi mhm. kooku nag dama koy présenté muy doomu sëñ Cheikh Asfal mu sëñ Basiru mhm. sëñ Cheikh Asfal nag si zaahir mag la ci sëñ Muntaxa mhm. sëñ Muntaxa bi ñu koy ziar dafa ñu waxoon wax bu doy waa dafa ne da ngeen doom làmb dañ yéen ndax ñu bi ñuy ziar la plus particulièrement nit ñi dañuy jël enveloppe bu xaalis yeeg ñun bi ñuy dem dañoo yóbbu ay kaamil yóbbu xasida Mhm. yóbbu sijaade lépp loo xam ne tey jii day rafetal yoonu murit la def ko def ko ci benn gaal gaal gi nag ci soxna moom Faati la ñu fabriqué gaal bi dugal ci téere mhm. ñu fekk ko njaareen bi ñu ñëwee bi mu gisee gaal yi dafa dafa dafa bëgg dafa ne da ngeen doom làmb daj ngeen wax jooju nag moo continuer suñu chaque année nag dañ koy def ba mu doon xalifa baay ñu continuer ko di ko def ba mu doon xalifa Sëñ Tuubaa ndax ànd bu yàgg boo gis nag dëgg la mhm. ndax àdduna fu nekk nga jox fa ci da ngay am benn objectif benn détermination hmm. nga xam ne lii nga gis hmm. ndax nit koo gis rek ànd ak moom lu yàgg la jàppal bis dina ñëw dina neex hmm. tey jii ziar bi suñuy dem Grand Dakar presque ñu ci bari dañuy dem ak fépp foo xam dañuy dem Europe tamit da ngay gis koo xam ne day ku ci mel ne Daouda Konaté nekk France ay zikki yoo xam ne zikki yu seet da koy dugal ci biir kaal bi man samay frère ñëpp dañ ciy jàpp ku mel ni Biram Dieng Mayoro ak Ousmane Ndiaye boo xam ne taalibe sëñ Muntaxa ren dafa ma ne kaamil yi ngeen di yóbbu ziar bi yëpp man maa koy sasoo depuis trois mois woo na ma te ziar bi des na six mois mhm. mun ma lépp luy kaamil man maa koy jël ren te kaamil bu ñu dugal ci biir gaal bi dañ koy jàng de passage tamit suñu jëwriñ Xaadim Seck Xaadim Seck na ànd ak man mais dafa am gàllankoor mhm. ndax dañuy ñaan suñu boroom diisal yan bi ndax yan bu oyofee rek yambar ngay doon ndax lu yomb baaxul mhm. ndax jiite yombul te nga jiite ay soxna jiite ay góor yàlla tey ziar bi bu ñëwee tey nga def sa corps et âme mhm. lekk ak naan buñ ko tal tant que bi ziar bi réussir ndax kooku la ñaam muy sëñ Muntaxa ndax soxna maam Fatou ñun mosuñu ko ziar danaa lu ñaam nañ ko yóbbul sëñ Muntaxa mhm. kooku sëñ Muntaxa la mhm. kon sëñ Muntaxa dañ koy ñaanal suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu tëbét ndax benn benn parole am rek livre la mën nga cee jàng àdduna dëgg la ñun Sénégal ñëpp bu ñu jëloon référence ci sëñ Mountakha kenn du def yéen nii hmm. rus nga ko jomm nga koo def kon nag ñun tamit Grand Dakar gii ñu nekk hmm. ñuy woo suñu doom suñu doom yi suñu raq yeeg yëpp hmm. ñu ànd liggéeyal sëñ Touba bi fi nekk tamit am nañoo ak yow jàmm yu bu jannati xuratul ay ni ñoo ñëpp suñu mbokk taalibi ñoo fa ne ñoom tamit ñu ngi liggéey liggéey bu am solo ami Saliou moo nekk ci garage bi di maajaam waaw mooy Baye Fall boobu kooku tamit jàmbaar la ci liggéey jigéen la mais màggal bu jot mu gaari ay kaar yóbbu nit ñi yóbbu ay benn te benn nit la. mu reposé wu ci kawam. kon Ami Sall moom tamit dañ koy ñaanal jàmm. Mm-hmm. di ñaanal tamit suñu yaay yi nga ñu nekkal tamit. Mm-hmm. ndax dañuy dem ci ziar. Mm-hmm. suñu yaay dañuy jël ay parfum cent et di ko ci biir ziar. te parfum woo. am nga murit dafa doy waar. man nay naa beneen saa jënd benn parfum bu cent mais bu dee ziar bi la dama koy jëndal señ bi. jox ko. ndax sëñ bi moo xam dayoo bi sëñ bi moo xam luy alxuraan mhm. te sëñ bi lépp luñ ko jox ci alxuraan la ko jëmale te ñun buñ ko toppee rek réussir suñu àdduna mhm. ku ci mel ni suñu yaay fay ñang tamit mooy jëruñu maire yi ak maire Ndeye Diagne maire Sophie Gueye ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam mhm. parce que man maa gën a ndaw ci daal ji mais coow li man la toog te dama koy nangu ndax dimbalu suñu borom ndax man opté wu woon pour lii dama doon jàng def naa ngalamu démb nee naa ko. Hmm. marketing jàng naa ko. mun hmm. ma lan ko waaw. ndeysaan man ko loolu yëpp hmm? nag laa jël teg fële ndax sëñ bi moom sëñ bee ma dimbali. waaw dimbalu sëñ bi laa nekk. Eh, ndax du may xëy suba ba ngoon jot lépp suñu nooyee suñ lépp ñun sëñ bi lañ ko doon. sànq dama doon wax ak benn xale ma ko soxna jaara point moom moom laa gëm. leneen bokkul leneen bokkul parce que. da ngay xool soxna jaara bi muy dem Porokhane. ñaata kilomètre la def. te suñ ko waxam suñu soxna si toog fii est dina dem. am nga soxna jaaro boobu. oto amul kii bu fii day jël taxi. saret lan moo ko yóbbu lan moo ko yóbbu ba Porokhane da ngay dugg ci kaar bi kaan climatisé ñu la Porokhane sori na le. dama damay man la yow soxna jaaro bu muy ñëw fi nag climatisation la ñu duggoon loolu mu taroo mu muñ ko ba am lii mu am. ndam lii nag soxna jaara c'est grâce à soxna jaara kon ñun yaay jigéen ñi dañ gën a xamaat suñu bopp gën a sonn ndax soxna jaara bu amul woon na sëñ bàmb du ñëw dëgg la ndax du am ko fi wàcc dégg naa dëgg de ndax soxna lañ moo mën a taxaw ni man naa mën naa jur wàllu ndeysaan te yàlla nañ ko soxla soxna yi yëpp yàlla nañ ko yàlla defal amiin yaa rabbi soxna ci diine géeg yëpp amiin yow tamit sëñ Souleymane ñaan la soxna su yaay faale daal te ah, daara ji bëri na ay soxna daal nga ah ñëw fa waaw hmm. waaw ñun dañoo bëgg ku murite joxe bariwul daal dé déedéet ñun si sëñ Touba rek la ñuy toog hmm. waaw sëñ Touba rek léegi la ñuy toog kon na euh, euh, euh, fa benn jaara ba xam naa ni balay <laughs> jaara rek daal di yëkkati li nga xam ne tey mooy jotaay mais tout le temps avant may tëj rek euh, di leen wax ni numéro bi mooy 77 546 02 84 numéro bi mooy 77 546 02 84 di leen fàttali euh, kii laa ameloon ci sama jotaay bii di Mboro Dieng mu nekk si membre yi nga xam ne tey ci côté jigéen ñi daayira Maam Jaara Touba de Grand Dakar mu gis fii jukki fi ay mbir yu am solo si wàllum soxna yi si wàllum jaare yi euh, si li nga xam ne tey mooy lu euh, euh, ñu koy waxee di sax màggal geeg poroxaan gi surtout poroxaan gi ni jub si dañ siy soxla ay mbir yu bëri bari bëri yoo xam ne ni tey dañ koy daal di def fi nga xam ne tey mooy Grand Dakar donc di leen wax rek xanaa la ma tàgga woon lu sëñ ba tàgga woon gars yi rek laay wax alamani safina ah. alamani rahmaani bi safina <laughs> bi andineel xaddimu zalmedina donc loolu dafa doon loo xam ne nii tey ba ma ko jàngee yàgg ni mais dama ko këru donc mu doon loo xam ne nii tey euh, defe naa ni kontaan naa bu baax mbëre ah, si dalal la si li nga xam ne tey mooy suñu plateau bi euh, ma bàyyi la nga def sa gànnaar kàddu lan lay doon sant bu baax tamit sëñ Sadio aussi da ngay woote nga woot ñi nga war a aussi yow antenne beegi noonu daal defal loo sax sëñ Sadio Ba tamit ñu ngi koy sant bu baax. Hmm. ñu ko tawila naa ura naa saxila naa. ba dëgg ba rëbb naa rus uh, ba tawféex yàlla yàlla na suñu borom defal tawféex. ba nga yor ay télé télé. Hmm. équipe bi nga yor tamit yàlla na suñu borom dimbali leen kàttanal leen wéral leen. Hmm. di lancé tamit ay appel ku ci mel ni Yann Thiam di borom kër si soxna Ndoumbé Diop Thiam soxna Ndoumbé suñu membre daayira la. Yann nag ñu ngi koy woo ci lépp loo xam ne tey jii muy camion de transport pour bagage yi tamit ñu mën a dimbali tamit. ciment bi tamit dañoo war a yóbbu 33 tonnes ciment. Mhm. pour jébbal ko. Mhm. soxna maam Faati pour kër gi ñu yeesal ko. loolu nag dama ciy insisté 33 tonnes yooyu. Mhm. dañoo fas yéene mu mat. te ñaan nañu suñ Tuubaa dimbali ñu kàtt nañu wér ñu ba mu mat. di woo waa Grand yépp képp koo xam ne mën na cee jàpp ngala mu caam ak euh, Tafa Gueye ak ñëpp. képp ku nekk li nga mën a ci jàpp mooy yaa xam ci ñaan yaa xam tey ci ñëw nga joxe sa idée ni def leen lii ak nii ñu ngi la ciy woo hmm. ndax ñun amuñu lu dul Grand Dakar te xale yiy dem Porokhane ak ñëpp hmm. Grand Dakar lañ juddoo lañ yaroo hmm. te bëgg lu baax képp moo leen fa yóbbu jàmm yi suñu borom képp moo leen fa yóbbu di ñaanal tamit samay membre daayra bureau bi yëpp ñu ngi ku ci mel ni Baye Samba Diop Khadim Seck Ismaïla Koulibaly Soybu Serigne Ndiaye ki yor sonorisation bi yëpp ñu ngi leen di ñaanal suñu borom kat na leen wéral ki man limul turam kooku laa njëkk a lim di ñaanal tamit suñu tuutànk ci mel ni Binta Diop ak xadiba euh, euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal suñu boroom may leen jàmm ak salaam aji daba nday mareem ñoom ñëpp ku ci nekk fa nga nekk ci liggéey bi yàlla suñu suñu boroom kàttanal la wéral la benn joxum ba nag ak nday noor mi ma àndaloon ci suba ba léegi nag ñooñu tamit ñu ngi leen sant di leen gërëm parce que ay mag lañu ànd ak man mm. waxuñu ma sonn nañu waxuñu ma loof lañu di ñaanal tamit suñu maamu daayira maam jaara jeng waa juróom bi wàññeeku ñu war ko ñaanal vendredi ci daara ji moor ko ne jël suñu borom yërëm ko te xare ko àjjana ñi fi jugee tamit suñu yaay yi fi jugee ku mel ne weer Anta Seck maire Seynabou Faye maire mhm. Amsatou Gueye ñi ñun ak ñoom ñoo doon ànd di dem Porokhane Papa Abo mhm. Papa Khalifa mhm. ñoom Papa Abo ñu koy ñaanal gudd fan ak wér Papa Khalifa tamit ak Papa ñi nga xam ne dañoo dëdd suñu borom yërëm leen ndax ñun ak ñoom a doon ci Porokhane suñu borom yërëm leen te xare leen àjjana duñ leen mës a fàtte ilaa mi di Babacar tamit ñu ngi koy ñaanal suñu borom yërëm ko ndax ñun ñoom ñoom ñoo doon ànd ci liggéey hmm. di ñaanal nag soxna maam Fatim Mbacke suñu borom bàyyi ko mu yàgg fi loolu tamit di ñaanal sama waajur jàbbakay yàlla may ko wér-gu-yaram may ko jàmm may ko salaam di ñaana suñu waaj sama waajur yu wàññeeku hmm. way de jëng suñu borom yërëm ko te xare ko àjjana di ñaan suñu taawu famille tamit hmm. ay doom ci man lañ ne da nga bokk nit ki papa jël say doom jox ko dafa yombut du xool guddee nañu du xool su heure bu ma leen fittee dana fi bàyyi mm-hmm. par saa semaine bi ñuy ñibbi seen kër mm-hmm. muy allah ji jeg ñu koy ñaanal gudd fan ak wér gi yaram ak xéewal yu sax dàq mm-hmm. du ko ñaanal njabootam bi ak anta képp ku dëkk kolobaan nekk sama doom baay maa ngi lay sama doomu nday njaga moodu waade ñoom ñëpp parce que sama waaju dafa jël këram jox ma te bu leen naqari woon mën nañu ko kii dañ ko favoriser parce que daanaka li gën a rëy ci kër gi ñun lañ ko jox jël nañu terrasse la mbaar Hmm. jël nañu benn salon boo xam ne si suuf la salle comme nii la toog moo ëpp lii. Hmm. ñu jox ñu ko. à notre disposition ñoom sax duñ fa dugg. ay téere ñoo fa ne. Hmm? kon ñoom ñoom ñoo ma gën jël magasin boo xam ne nekk na 6 mètres carrés. jox ma ko man si laay weccee ay téere yooyu di ci liggéey. kon nag man sama famille. maa ngi leen di sant di leen gërëm. ndax aw kenn ku du sa nit ku sa mbokk nga ko mm-hmm. te dimbali nañ ma ci liggéey bii ma nekk maa ngi leen ci sant bu baax di ci sant seen doom yi tamit ànd ak man yàlla may leen jàmm may leen wéri mm-hmm. ñu ñaanal kuréel deux bi samay doom ñoo fa nekk Xaadim Silla ñooñu maa leen yar kuréel boobu moom dinaa wax Sadio Fall ñu fexe ba ñëw fii jàng fi ndax ñooñu maa leen yar ren dañ doon def ba ñoom ñëpp am cent pour cent mm-hmm. loolu la parce que bi ñuy def ba man stressé wu naa tiit naa. mais hmm. suñ tubaab dimbali nañu ba ñoom ñëpp ñu jàll. ñoom ñëpp jàll ñoom ñëpp jàll. d'office waaw Fatou Meng sama doom la tamit <laughs> ñëw daayira vacances. bi ma leen gisee daayira dama tiit. Hmm. parce que naanaa parents yi wax mbore lu tax xale mu bàyyi xale. Hmm. ma ñëw leen lu tax ngeen ñëw daayira ñun ma suñ tubaab lañ am. ma leen yàlla leen fekk fol wàllu. te suñ tubaab wàllu na leen bu baax a baax Omar Silla euh, Issa am na benn xale boobu dafa bëgg Ibrahima Fall la mais xale bi moom dafa may sooj ba bëccëg yëpp day ñëw fëgg ma am na xale bu bébé Cheikh Ismaïla ñoom ñëpp daal mënu ma lim hmm. parce que xam naa ne am na fu ñu ma féete te bëgg naa leen sama xol may ñaan ñi doon ci milliardaire u sëñ Touba yi te sëñ Touba am na ko mën na ko te yàlla leen koy te maa ngi lancé benn appel màggalu hmm. Soxna Jaara bi ñu jëm mooy dàq màggal yu ñu hmm. te nit ku ci nekk ni nga ci duggee mën nga ci tooy xam nga boo ba géej day da ngay sang ba dugal sa tànk sa tànk maa boo sóoboo sa lépp bu ñu denc dara nañ miraas suñu bopp soxna jaar jar na ko lu ëpp loolu nañ sóobu nañ sóobu hmm. ku sóobuwul doo am sëñ Muntaxa ne nañ sóobu kon nañ jël suñu lépp nañ tay suñu nelaw suñu hmm. suñuy laa ak lépp hmm. képp koo xam ne am nga bagage boo xam ne tey jii mën nga koo joxe mu génn dara nga dem jox ko mu génn dara réussite DMD ci màggal gi mooy réussite ñëpp maa ngi tuubaat ci kàddu li ci dëng nag ña xam ne matali doomu aadama di ci jub ñu xam ne ndimbalu sëñ bi la di sëñ Souleymane ñu ngi lay ziar mi ngi lay nuyu bu baax di ñaan waaw suñu borom may la soxna su taw a am murite ñu la koy ñaanal di ko ñaanal incha allah di ko ñaanal suñu soxna si tamit ah suñu borom jàppale ko bu baax a baax bu muy def émission <laughs> noonu dama koy yóbbaale moom membre la léegi sax jërëjëf ngarabu caam tamit ñu ngi koy sant bu baax mm, mm, mm. parce que mi ngi moom borom baax Grand Dakar su ñuy dem ci armeel yi ba koy bay ñun ak daara moom ak daara yi grâce à moom la weeru koor dafa jot li gën a yéeme kenn moom mu ñëw ci mbaar bi mm-hmm. moom moo peinture mbaar bi moom moo ko dessiné moo ko bale moo ko fabeere mm-hmm. ñuy dundal weeru boo xam weeru koor boo xam ne fulk la dañuy jàng fulk masxuum ci mm-hmm. daara trois personnes ñoo koy jàng Arouna Dia waaw Baye Samba Diop ak Sam Fall de passage kooku moom ay li ci ëpp moo doon jàngal xale yi alxuraan siñ saam ñoom ñett ñooñu weeru koor bi ñëpp ci daara ñoom ñooy jàng xasida bi te bu ñu paree am na ay cadeau yoo xam ne dañ koy réserver te lépp su ndimbalu suñu borom la mm. mais ngalamu daf ci def daaw liggéey bu am solo mm. parce que gis pareen saa doo gis ku la épaulé mais ngalamu fu ma nekk mi ngi mm. jàppale bu baax su ma gestoo gis ko damay gën a am fit am fit moom it bu gestoo gis ma ci liggéey day gën a am fit kon nag ñu ñëpp nañ booloo suñu doole ndax booloo mooy doole ku nekk la nga nekk yaa ko gëm nga xam ne fii nul est parfait tey mën ngaa nekk ci diine gi am koo xam ne nekku di sax moo la gën a rafet xol nit du juge doomu aadama fii kenn gënu fi kenn mhm. yàlla mooy baaxal te yàlla na baaxal ñëpp maa tubaat bu baax di jégalu ñëpp yow yow doo tuub ñun ñooy euh, si dagg émission bi nga xam ne am na solo euh, ak jàngat yi nga xam ni tey jot noonu ka fi jàngat fàttali rek ni euh, mën ngeen di abonné continuer di abonné di like di partager nga xam ni tey mooy suñu festivité yi nga xam ni tey duñ koy def si suñu différentes plateformes muy TikTok Instagram di lépp loo xam ne nii tey maanaam euh, circuit de communication la rek web info mu nga foofu noonu defe naa tamit euh, gis ngeen li nga xam ni tey moom la suñu bàjjan Mboré daal di waxtaanee ak man du yam fii nag parce que tamit bëgg nañ aussi accompagner leen si li nga xam ni tey mooy jaare yeeg nga xam ni tey mooy programme bi buñu ko yàlla may ak suñu disponibilité incha allahu rabbi te xam naa ni sama DG duma ko ko bañal loolu maa ko xaacu pour l'instant quoi dugal ko si bis bi <laughs> pour l'instant loolu moom maa ko jël engagement quoi mais kontaan bu baax a baax a baax Mbore si dalal la fi nga xam ne mooy sunu loko web xanaa rek balaa ngay dem di fi bàyyi euh, bu baax a baax a baax pour li nga xam ne tey mooy liggéey bi gën a jëm ci kanam euh, di bëgge bu baax a baax ngalamb mu nga xam ne tey moom bu ñu fi baaxee moom tamit dafa ñëw rek dine maa leen gën a baax donc ñu koy siyaar bu baax a baax di bëgge bu baax a baax sama famille depuis Wakam di leen siyaar bu baax a baax di leen jox di dajee ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah